conseil constitutionnel ngir rek ñu daal di cay andi xalaat jëm rek ca la nga xamante ni sax ñoom moom la ñuy sàkku rek muy daal di rek tas assemblée nationale ba waral ba moom njiitu réew mi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di rek saisir ñi ji nag ñoom rek lay déglu ca la nga xamante ni sax daanaka ñu nga koy wax rek mu jëm ci wàllub dissolution bu assemblée nationale coowal Mamadou Ibra Kane Alassane Samba Diop ak milliardaire bi di Abdoulaye Sylla mu mel ni nag seenub euh, chaîne bi di euh, ITV daal nay rek euh, jànkonteel ay jafe-jafe rek jëm ca ka nga xamante ni sax daanaka bokk na ca actionnaire muy Abdoulaye Sylla li ni mel nag mu mel ni nag ba ñu ca tuddee sax coowal justice daanaka mën nañ jàpp ne moom Abdoulaye Sylla nag daal rek passé ca vitesse supérieure gannaaw ñu daal di rek gis ne sax ne moom daal nay rek déposé ab plainte ànd ak nga xamante ne moom moo di avocat am rek jëmmal ko ca ñaar nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk rek bi di immédiat média muy euh, Mamadou Ibra Kane ak ka nga xamante ne moom moo di Alassane Samba Diop mu mel ni nag bi le coow mu ngay gën jëm kanam rek ci diggante ñaari directeurs yi rek ak ka nga xamante ne moom moo di Abdoulaye Sylla ñu dal di wax ci coowal voile ba nga xamante ni sax kii di njiital gouvernement bi Ousmane Sonko yëkkati woon na ko rek jëm ca élèves ya nga xamante ne dañuy daal di rek teg dara seen bopp mu daal di doon ab muuraay bu ñuy rek dugg ca l'école ba waaye nag li ni la daal di jur gannaaw moom premier ministre daal nangooti ñuy dàq benn pandongo ci rek li ni mel mu mel ni nag na ci sax ñoo xamante ni daanaka rafetlu wuñu woon ko dara waral nag bañ a fare ca l'église ba rek am sax ñenn ñu ca génnoon rek di rek wax kàddu yi nga xamante ne moom premier ministre yëkkati na ko daal nay diis loolu rek ci ña nga xamante ni sax daanaka seenub lekkool lañ yorut ba noppi rek respecté seen ay règlement intérieur mu mel ni nag ministre bi ñu dénk wàllub éducation dal nay rek demoon ca archevêque bu Ndakaaru di monseigneur Benjamin Ndiaye ab waxtaan rek la ñu daal di seq ngir rek dal di apaiser li ni mel rek ah, jëm ca kàddu ya nga xamante ne moom Ousmane Sonko yëkkati woon na ko rek ñeel coowal voile ak ndongo yi nga xamante ne daanaka moom Ousmane Sonko mu ngi wax rek ne dootuñu nangu ñu leen di dàq rek ndax muuraay yi nga xamante ne dal nañ koy def ci seen bopp ñu dal di wax ca plainte ba patron bu 7TV dal di rek déposé teg ko ca kaw Cheikh Bara Ndiaye li ni mel nag mu ngi ñeel ay kàddu yoo xamante ni sax moom mooy mën a ndur fay ah, jàpp na ne manipulation ak bokk na rek ah, ca jamono ji nag jafe-jafe nga xamante ni sax ñu ngay doon wax naan ñii di tv ah, daal nañ koy rencontré rek ba nga xamante ni sax daanaka ah, ba mooy rek bile groupe daañu ko tëj wala sax yeneen bailleur daal di rek nangu bile groupe de presse daal di koy akimo kaddu ya nga xamante ne Cheikh yëkkati woon na ko ci rek mu mel ni ni ki démb moom a Ndour Faye patron bile chaîne daal di nay rek génn leeral li ni ba noppi rek daal di sax annoncé plainte jëmal ko ca kaddu ni sax daanaka Cheikh Bara Ndiaye daal na ko yëkkati rek ah, teg ko ca kawam ñeel la nga xamante rek moom moo di groupe de presse am li ni mel nag ah, mu daal di doon rek plainte boo xamante ni sax daanaka ah, moom Maimouna Ndour fay daal na koy confirmer rek jëmal ko ci Cheikh Bara Ndiaye ñu daal di wax ci leneen kii di Adji Sarr daal di nay réapparaître rek mu mel ni histoire am ak suite bu du jeex mukk ñu ngay gis rek ah, vidéo ba nga xamante ne daal di na koy dévoiler rek mu daal di jëndub paquet trousse boo xamante ne rek daanaka pinceau ba tur ya nag ñu nga ko daal di duppee suite bu moom nag mu daal di sax partage rek bii les vidéos ah, jëm rek ca ba nga xamante ni sax daanaka fa la doon liggéey rek Ndeye Khady Ndiaye jiite woon ko ba noppi rek ah, duppee na bii les salon suite bu mu mel ni nag moom Adji Sarr Ah, bi le paquet trousse pinceau ba nga xamante ni nag daanaka jënd na ko rek ah, ñu nga ca bind ah, Sweet Beauté mu mel ni nag coowal Sweet Beauté ak Adji Sarr du jeex mukk rek ni ki démb gannaaw vidéo ba nga xamante ni rek daal na génnaat partagé ko ñu daal di wax ci keneen ki ay dara l'ex-femme de Pape Cheikh Diallo moom la ñuy gis noon rek mu réapparaître mu mel ni gëjoon nañ koo gis loolu moom ki ay dara nekkoon animatrice ca télévision Futur Média mu mel ni nag ni ki démb daal nañuy gis rek xamante ne rek daal na koy dévoiler gannaaw ab diir bu yàgg rek gisuñu ko ci réseaux sociaux yi ni ki démb nag mu mel ni moom Kia daal na réapparaître actrice bi mu nga xamante ne rek ñoom ñoo nekk ci série ni nag moom Soumboulou mu ngay mu nga nekk rek ci bete bete daal di sax partager rek ab vidéo di tooñ rek ña nga xamante ne ñoom ñoo daal di nekk rek ci Cœur brisé moom Soumboulou nag mu ngay wax sax naan yile acteur ak actrice mënuñoo dab rek ñoom ña nga xamante ne ah, daanaka ñoom ñoo fare rek ci bile série di bété bété Fat Bintou bu série Babel moom la gis noonu rek ak belle image mu daal di partage rek très bien en robe moom Fat Bintou daal di séduire bu baax a baax ñi di ay flowsam gis nañu nag ah, nga xamante ne daal na koy partager ci kontam ñu daal di wax ca série chez Jojo ba nga xamante ne daal nañ koy suspendroon rek loolu mu ngi ñeeloon yenn ci ay kaddu yoo xamante ni nag daanaka CNRA dal nañ koy nemmeeku rek ba dakkaloon bile série ni ki démb nag gis nañu déplacement ba nga xamante ne Père Zora ak scénariste ba di Cheikh Ndiaye Jojo dal nañ koy def rek dem seeti patron CNRA di Babacar Diagne ñu daal di rek toog waxtaan waaye tamit ay kàddu njëgal daal di rek jub ca ñoom nga xamante ni sax daanaka reconnaître nañ rek seen ay erreur ci bile série nga xamante ni yëkkati nañ ci yenn ci ay kàddu yoo xamante ne daal nay offensé rek mu mel ni moom Babacar Diagne nag daal nay rek jéggal leen na ci yile kàddu nga xamante ni sax daanaka jàll na rek nekk ca série ba mu daal leen rëcc ñoom tamit ñu am grandeur daal di rek jéggalu yile kàddu rek ngir bile série daal di rek wéyaat foofa ca TFM actrice bi di Mignon mu mel ni nag fii ak fan dina dégg madame gis nañu nag la nga xamante ni sax daanaka Clara madame Gaye daal na ko koy rek organiser image moom la ñuy gis noonu rek mu mel ni moom Mignon jamono ji nag mu ngay waaj rek mariage gannaaw image nga xamante ne daal na koy partager rek ki organiser nag bile Clara Gaye daal di rek partagé ah, yile image jëm rek ca la nga xamante ni sax daanaka moom moo di wàccaayu mariage bu kii di Mignone ñu wax ci artiste bii di ISA 814 mu mel ni nag euh, vidéo wala sax son clash ba nga xamante ne rek génnee na ko jëmal ko ci kii di Canabasse mu jàpp ne nag euh, bi son daal na rek éteindre Canabasse ak Buzzlap ñëpp ñoo xamante ne rek daanaka ay artistes lañ rek ah, moom ISA 814 nag ñu ràññee ko bu baax a baax mu doon artiste rappeur bu ñu ràññee ah, doon tamit beatmaker mu mel ni nag yile kàddu nga xamante ni sax daanaka na ko rek ah, jëmal ko ci kii di Canabasse mu jàpp nag daal rek. fay carrière Canabasse ba kenn déggatu ko rek moom Iz nag yile kàddu la daal di yëkkati rek mu mel ni milieu hip hop ak clashante ba daanaka nemmeeku nañ ko ca bu baax a baax waaye moom Iz nag jàpp na ne clash ba nga xamante ne na ko kii di Canabasse rek moom moo daal di fay carrière am ñu wax ci bébé Eva ma nga xamante ni sax daanaka kii di Adamo defoon na live di wax rek ne la nga xamante ne mu nga ko doon ketal rek kii di Yado artiste ba di tëdd feebar rek kenn gisul xaalis ba mu mel ni nag moom Eva daal nay rek briser le silence jëm ca loolu gannaaw nag mu daal di déplacé wu dem ba ca kër na yaayu yadu yëkkati rek lu toll ci huit millions yoo xamante ne rek daanaka collecté na ko rek jox ko ko loolu nag mu daal di ñeel feebar ba nga xamante ne rek dal na yadu rek moom bébé Eva nag ak la nga xamante ni sax daanaka accusé nañ ko ko rek mu jëm ci wàllu escroquerie mu mel ni daal nay rek briser le silence dajale koppar goo xamante ne toll na ci huit million yóbbu ko ca kër ñoom yadu jeexalee ak drame ba daal di xew ni ki tey ci suba foofa ca diwaanu Kaffrine mu mel ni nag ab agent Senelec gannaaw mu doon rek amal réparation rek dafa daal di sax ñàkk bakkanam courant ba moom moo ko daal di mas mu daal di doon mbir mu doy waar xew rek foofa ca diwaanu Kaffrine gannaaw agent ba nag di réparer rek la nga xamante ni sax moo ñeel courant ba ca poto ba mu mel ni nag moom dafa mujjee ñàkk bakkanam rek courant ba daal di koy mas mu daal di doon mbir mu doy waar daal di xew rek foofa ca diwaanu Kaffrine Kaffrine nag mbokk yi safan doon ñu teewlu lii lañ leen andiloon seen wax ngeen abonné suñu chaîne bi te laal notification bañ a raté dara suñu information jërë ngeen jëf